Eumeu Sène nee na daa daje problème benn mu doon taagi nii di demali di ñëw. waaw koko laay laay léegi koko laay laay biñ ko sonalee Eumeu Sène ba sonal ko ci nee daa xëy génn këram biñ daan biñ bëree ba pare ba mu daanu. nee na mu ba mu daanoo. nee na mu ñëw génn këram di dox di dem. waaw jiit léeg benn Ibadou Ibadou bi di dox ba ci yàgg jékki-jékki daal di romb Eumeu Sène ak sikkim bi daal di koko laay laay na mu ne ko yaa ñàkk fayda yow Ibadou bu toll yow nga naa ma koko laay laay ma xalaat rek. bolak bi rek nee na ma ne El Hadj Guèye mooy sama tailleur bi nga xam moo nekk biir Dakar bu fa kenn di dem di ñawlu ku fa dem koko laay laay la lay ñawal. soxor kële ku fa dem koko laay laay la ñëwee. tey koko laay laay la ñëw xam nga doxay soxor daa yàgg bëgg bës. waaw te lii nii day delloo si waat soxor ci biir làmb da day indiwaat bës ndax tey jii balaa suba nga gis ko ci biir YouTube bi. mun ta ñàkk. moo man la nit ki. waaw yi buñ dee def. dañ def loo xam dañ ko gis nga tey nee